dañu am mbégte lool tey ci bés bi ñëw tey ah, fekk tey bés bi ànd ci ak ah, askanu Baobab ànd ci ak askanu Mermoz Sacré-Cœur leen di jaajafe di am kontante lool parce que tey ndaw yu Baobab yi ñoom ñoo sàkku ci ñun mairie bi complexe bi daanaka terrain football bi ak terrain basket bi ñu mën ko tudd ah, kii di Patrick Simedo dem si yàlla mu nekkoon ndaw bu amoon fulla ndaw bu amoon fayda ndaw bu bëggoon goxam bëggoon ay mbokkam bëggoon ay dëkkandooram mënoon football lool nag macha allah kaar kaar ah, yàlla jëlee ko fii tey nag ñu koy delloo njukkal kooku dama ci am mbégte lool bu ci tegu nag mooy lii lu muy firndeel tey mooy suñu yéenee ci ah, ah, liggéeyal askanu gox gi wala tamit liggéeyal askanu Ndakaaru Njaay moo tax tey ma am tamit kontaan lool ci di xalifa Sall ñoo fekkee bés bi ak tamit ànd ci ak madame le maire de Dakar Soham El Wardini maa ngi leen di gërëm di leen di sant ci turu conseil municipal bi ak ci turu askanu maire moo sake kër bu ci des nag ci ay fan yu néew di ngeen gis moo xam ci mbiru sport moo xam ci mbiru euh, santé moo xam ci mbiru éducation fu nekk dinañu wane suñu yéene ci askan wi euh, lu muy wane rek mooy euh, lu ma waxoon démb rek moom lay moom laay birilaat tey dama ne yéene bu ñu am ci ndakaaru Ndiaye dañuy ñaan yàlla moo yàlla may ñu ñu fekkee dal ak dal ndax askanu ndakaaru Ndiaye ak askanu Sénégal mën ci gis seen bopp. donc ci ay fan yu new tamit di ngeen gis moo xam ci yeneen gox yi moo xam Sacré-Cœur moo xam Mermoz ak yeneen gox yi di leen góorgóorlu ba yu mel nii ñu ko fay tabax parce que suñu xaat bu gàtt mooy tey ndaw yi dañu nar a delluwaat euh, mën a approprier wu valeur wu sport valeur wu éthique ak yu mel noonu. bàyyi toog ci bopp koñ di naan ataaya wala nekk ci lu ngeen xam ne ni wax dëgg yàlla du nag su noonu